amul liggéeyatun jaaykat yi liggéeyatun kenn koo xam ne la xale yi liggéeyatun kon réew mi sonn nañ kon lii mu def nii affaire dictateur la anuñu tey anuñ ci ëllëg dina dóor ay grenade daw France tëdd fa mook ak jabaram ak i njabootam réew mi nun ñoo ko bokk dafa waroon toog fekk lépp fekk rayanteeg nit ñi ñu rayanteeg moom nun suñu bakkan lañ ci teg fii ba jant bi soo bu soobee yàlla lii du jàll te bu soobee yàlla bu jàllet duñ ko may jàmm duñ ko may jàmm ëllëg te Macky day incha allah dañ koy wàcce lii du loi jaay doole la loi dañ loi ak jaay doole du benn dafa niroo te bokkut loi da ngay seet loo xam ne nii duut ma samba tax ñu defar ko duut ma temba tax ñu defar ko du mbubb moo xam da nga yore sa ciseau dagg li neex ak li la jot loolu du loi moom li muy def nag c'est du jaay doole alal lu réew mi ko jox alkaati yi nga xam ne ñoo leen di fay ci xaalisu réew mi oto yi nga xam ne ni ñoo ko jënd jox ko administration bi moom lay jël ëlbatiku teg ko population bi du ñu jaay doole du ñu xoñoñal di ñu wan ne compte wu ma leen faale wu ma leen. bu ñu toogee ñu xool li nga xam te moo bëgg moo nekk di daw assemblée actuellement nii bu ñu toogee croiser suñu loxo ba loolu jàll ñun ñëpp suñu toroxataan nga lay doon parce que ñun ñëpp gis nañ dëkk bi nu mu métti dëkk bi dafa maké kon turum mom ci jëmi bopam man lan laa mënta comprendre te Sénégal lenn lañ mënta comprendre yow li nga xam tane mo la fal yow do mëna ñëw nga fal ba paré nga né da ngay xañ ñeneen ñi lool mënut a nekk mënut a nekk ñun nañ wax de dëgg xam ñun duñ la bay dëkk bi yow nga japp né yow ya mom dëkk bi yow ba ngay falu loolo tax ñu fal la né loolu lu la fal kay bay li nga xamante ne sa morom yi nga xamante ne gis nañ li nga xam ne ko nga bay sa morom itam ñu góorgóorlu tam si lool pour man jamm rek mo fu mëna nekk te jamm rek mo fi nekk ba ñu ilaa mu naa ne lu si desoon yëpp euh, kii bi sëriñ yi motal nañu ko sëriñ yi ñaan nañu def nañu lépp te kon jàmm rek la am gis nañu fii lu ne 2010 moo gënoon métti mais l' essentiellement daal na gars yi xol yi seen xol yi nañu ñëwaat si yàlla daal ñu xam lu ñuy wax ñu xam lu ñuy def ñu xam ne ñu yëpp ay sénégalais lañu ñoo bokkundee ak baay depuis Macky Sall ba Khalifa Sall ba euh, Malick Gakou ba ñeneen ak ñeneen. aduna du dara loo gis day jeex mais l'essentiel daal na rafet rek ñu xam ne lii aduna la te loo gis day jeex mais nañ si war a def jàmm rek te jàmm lañ si bëgg. ñun bokk ñu benn parti politique waaw waaye bokk nañ si dëkk bi ndax am nañ am nañ ay këyit comme dëkk bi comme waa dëkk bi ni ñu amee ay këyit mais dafay yomb nga jël suñu constitution saa boo xëyee foog ni benn journalu cent francs la da ngay baare di copier di baare di copier loolu dañ cee doyal. ñun li ñu bëgg ci dëkk bi moy conscience bi ñu respecté ko kenn ku ci nekk ci li nga tok nga xam ko ñun ñoko ko ñun la neex ñu ni ko lii bu ko laal affaire de parrainage bi nako té. c'est pas le moment anduma ci puisque man donté comme li la wax sama euh, début phrase rek ne na la donté ñaar nit ñoo contre rek te xam ne risque bu né mun na ci am rek war nga mëna a kon donc man duma ci andu quoi kon li nga xamné ni moy parrainage c'est pour n'y arriver liquider des candidats parce que lu nit comprendre lan parrainage su jallé mom ku fi candidat daf ko neex su Si su jallé ku nekk électeur di eh, daf ko neex parce que déjà wote nga yow avant élection yi ñew képp ko wara ku wata war a wateel Malick Gakou danañ ko xam su boobaa nag léegi yow ku wata ku war a wateel Karim Meïssa Wade dana ko xam Sonko Cheikh Bamba Dièye toute l'opposition ma daal lañ defee ndànk ndànk ndànk loo gis day jeex Macky Sall saa si boppam day dem kenn mooy ñëw am na ñu fi nekkoon ñoom Senghor ano ñu yal na leen yàlla yërëm ñoom Abdou Diouf ñoom Abdoulaye Wade Macky Sall sax waaw macha allah ñaanal naa ko nag man sama mbokk pula Khalifa sama mbokk pula mooy loolu yëpp intéressé wu mais l'essentiellement daal nit ki tamit boo koy votal il faut nga xool man sama 2012 Macky Sall laay votal te fi ma ko jàppoon démb ak tey foofu laa ko jàppee ba léegi mais l'essentiellement moom tamit na xool sixième am science bi mu xool nu muy doxalee réew mi bu baax a baax parce que euh, ñu Sénégal jàmm la ñu am li yow saa waru am fii parce que man dama doon romb dama ñëwoon fii rek Dakar mun naa ne tey si fajar laa fi si mais depuis ma yow maa ngi wër nekk mais après dama fekk fi si rond bi gars yi di jël fii ay lacrymogène ay kenn xamul euh, affaire bi depuis sànq sama bët yi mu ngi indi ay rongoñ ay xam nga rek loolu yëpp neexul ko waa te aussi tamit seede yàlla euh, aussi tamit loolu yëpp il faut ñu wax si